Sur la considération générale sur le projet de finances, je pense que je n'ai pas grand-chose à dire, puisqu'en commission, nous l'avons déjà adopté. Et Monsieur le ministre, je tiens tout simplement à vous remercier pour ce que vous avez réussi dans la résilience économique avec la pandémie. C'est vraiment un résultat louable et je tenais à vous remercier. Cependant, Monsieur le ministre, je tiens aussi à vous remercier puisque chaque année, vous le savez, je me plaignais pour la boucle du Boulouf, je me plaignais pour la boucle des Kalounaï. Aujourd'hui, je dois reconnaître qu'il y a vraiment un effort qui a été fait. Donc, je tiens à vous remercier et je voudrais bien que le, les travaux puissent aboutir. J'aurai le temps de le dire à votre collègue des infrastructures, mais c'est une urgence. Je veux parler de la RN4. Aujourd'hui, elle est tellement dégradée que j'ai peur que les populations sortent. Donc, il faudrait mettre là une urgence pour au moins résoudre ce problème. Je vous remercie, Monsieur le Président.